bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi tey mooy guddi ñaar fukkeel ak juróom ci koor gi naafile tey gi di juróom ñetti rakka muy ñeenti sëlmal rakka bu ne fatiha yoon xul wallaahu yoon juróom ñetti bu ne fatiha benn yoon xul wallaahu ahadun ñeenti yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.